Salle Couture Darou Khodos Vessel Haudou Plombier école privée Mohamed sherin Cheikh école privée Haudou Mawroud Cheikh Diop construction e Touba taif Karo e Touba taif Khadim Rasoul Darou Nahim multiservice Golden Café compagnie Niamar Business Sane Bay entreprise Mohamed Serigne Cheikh Iwil Salihina Hawdu Couture 1 Dakar alimentation Xidmatul Xadim Xaadim boutique waa kër boroom Hawdu Taïf Déco ñoo leen di may seen jongante xasida daaray tuttànk yi Serigne Abdou Khadir Mbacké kon mooy candidat bi njëkk yëg tey Serigne Abdou Khadir Mbacké bismillah مدى الخبير لي والكبير ما لا يبور من اللهي مدى الخبير لي والكبير ما لا يبور من اللهي

Manu شاكوري هلا شاكوري زربي ساناي إلا تقي ليس الساقي بابي رقي ينهوني داي لم ينه قلبي داع لقلبي أو داعي صلبي أو داعي داعي خير نكازور يوم الخفي يا تايب لغيري تائب لغيري تائب من كاشفي لك حروفي من صروفي ما yazalu hai laka ho rovi min kazurovi ma ho rovi yazalu hai laka ho min kazurovi ma ho rovi yazalu jërëjëf ci njàng mu am solo mi di siaré bu baax sang bi serigne khadim yàlla defna ak suna ci jotaay mi daaj bi gone jël tay nak ci fatali moy daaju serigne abdul khadir gasama bok ci magni yàlla def mu jitu euh ñu diko fatali ko tax ñu indi ab daajam ko jambar la won ci xasida yi bari na euh, lu leer ci xasida yi ci ginnaaw bi fi ma ñu jógee uur bi ci topp nga xam ne tey ji bu ndaw ñi bari mënee jaruñ ci xasida yi seen baxaal dëgg asama da ciy liggéey lu baree baree bare bare ba ci daara yi gën a mag ci Sénégal ñu ci bari seenum njàng ba muy door mm, ci moom la awee bokk na ci ñi ci jaa ñaax ndaw ñi daan ko leeral ci ay band di wan yoon wi ndaw ñi ma topp ba tey jii njàng mi mën a tasaaroo yàlla def mu jiitu ji ñu koy ñaan suñu borom doole ko yërmande doole ko ay xéewal moo tax tey tey daara tu tànk yi jël ab daajam ngir rendre ko hommage moo tax ñu jël ab daajam tey indil ko nit ñi ngir fàtt ngir du ko fàttali ko baax a baax na ko ñëpp ñaanal kon su ko defee léegi ñu jox euh, mbokk taalibe yi juge yi ko defee ñoom ñoom luñ seetlu ci daaj bi ñu doo ko jàll ci beneen mbokk taalibe bisimilah. jërëjëf jërëjëf sëñ Abdou Khadir macha allah am na solo lool am na solo lool ku la dégg ni doon jàngee dana xam ne.

boobu waroo ñëw rek raay ko da ko war a onlage da nga ko war a onle bu baax muy gën a muy gën a génn waaw am na solo lool am na solo lool njàng mi am na solo jërëjëf jërëjëf kon jërëjëf sëñ Abdou Khadir ci njàng mu am solo moomu kon mel na ne bàyyi na xel bu baax a baax eh, lii sëñ yoro doon yi ci njàng mi ci daaj bi troisième xaab bi bi muy wax ne dafa am way woo xam ne dafay xaw a manqué tuuti kon jërëjëf waaye lu ci mën am moom njàng mi neex na lool macha allah xam naa tey jii moom ñi àtte dana xaw a kii ndax dafa mel ne gone yi lu ñu gën a dem rek ñu ñuy seen góorgóorlu di gën a feeñ ak coono bi leen liggéey bi jaral jërë ngeen jëf ci jëwrin yi leen tàggat ci daara ji sëñ Jaxat Mbay moo ci war a topp sëñ Jaxat bisimilah su ko defee yow ñu déglu la ba xam matal qabiru li wal kabiru malaya boro minalu hay matal qabiru li wal kabiru malaya لك حروف من سروف ما نور فيه يزال لك حروف من سروف ما نور jërëjëf sëñ Njaxat kon xam naa dañuy bàyyi ak docteur ok asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi ziare bu baax mbokki taalibe yi fi teew yëpp di di jiital sëñ sëriñ sëñ Xaadim di ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi lool te may ko ak lim nam ma liggéey ci yoonu sëriñ Tuubaa bi suñ borom kàttanal ko am àggale ak mboolem taalibe yi di jaajëfal sañ jaxat ci prestation bi am solo bi xam naa li ma ci wax rek boo ko defee gaa yi jàll ci les xam naa li ci mooy jëmmi neexitu neexitu baat bi wax dëgg masha Allah moom daaj bi day mel ne neex na lool ci jàng gi beneen bi topp li ma ci seetlu mooy maalaa ya booru malaa ngay waxee malaa daamax terab bi damax rek ngay wax loolu moom seetlu naa ko xam naa li dama koy bàyyi gaa ñu ñu ñu ñu sëñ <laughs> Yoro bisimilah. waaw jërëjëf am na solo lool comme ni ko sëñ Ousmane waxee rek xëy na liñ ciy dolli rek mooy xëy na liñ ciy dolli rek mooy comme comme comme comme doxin wi doxin yi nga gën koo bàyyi xel bu baax a baax surtout maanaam euh, surtout deuxième xab bi ni koy defee daa mel ne daa xaw a bu xawee diib rek day day dem waa Kër sàmp bu defee doxin wi tamit da ci am solo bu baax a baax nga koy bàyyi xel waaye am na solo lool jërëjëf. waaw deuxième xaaj comme euh, comme euh, kii bi waaw xilli madal xabiru foofu laay wax waaye waaw onlation boobu wurta wurta di ko noonu maanaam bu diibee rek day day dem waa Christmas Masamba ni nga koy indee madal xabiru لي والكبير بوكتك لي والكبير بو ديفه نون ريك داي داي داي ديم وا dem waa بو ديفه لول لاي defee nga bay ko xel bu baax am na solo jere ak sa xoj yoro jërëjëf ci leral yu am solo yi kon sëñ Jaxat kon ba ci karam tuti inshallah Euh, sëriñ Fallou Gueye moo war a ñëw sëriñ Fallou Gueye.

பேரோ غير داع tey ji moom du yomb moom gone yi dañoo jàmbaare lool lool lool lool wax dëgg yàlla jërë ngi jërëjëf sëñ Fallou njàng daal moom fu takk rek na ko neex na lool su ko defee sëñ Aliou bu dee am na ci lu ngeen ci jubanti waaw jërëjëf sëriñ Fallou njàng mi wax dëgg ku ko dégg xam ne sonn na ci njàng ni nga koy jàngee neex na lool macha allah waaye seetlu ñu ci am bi ci njëkk mooy léeg-léeg yenn araf yi ni nga koy tuddee day xaw a lool lu feeñ na ci bi ci des mooy ci ñetteelu xàbbu yi dama ne boobu moom am nga fi problème malaya boro am na wàcc boo ciy def loolu bokk ci day xëy ji jëm feneen na loolu bu ñuy repte ñu koy bàyyi xel bi ci bi ci bi ci desaat mooy malaaya booru malaaya booru nga wax xëccoo maa loolu tam mat naa bàyyi xel bi ci desaat mooy dañ comme dañ leen ko baax a waxee rek boo yëkkati del jàpp jël jàpp sa loxo ci sa nopp loolu dana la dimbale waaw seetlu yooyu yaa ci amoon rek. ok jërëjëf sëñ sëñ Fallou ñu ngi lay ziar bu baax di la jaajëfal ci prestation bi am na solo xam naa bu dee man moom la may seetlu mooy maaxin dalaale waaw maaxin dalaale daa mel ni loolu da bëri na kat yu yàq xeeti yàq yu bëri na kat yu ko yàq waaw maaxin dalaale la ñuy wax. أك أنا مسخبرين ما حتى لالي ما عدا لالي ممني حلالي لعمل حاجة عنو وجان ليلك أو لك تهور دمت بند ما جل لك هروف وي وينك بي ما بينك تي توب ما يبي توب تي تي تي واجي بي لك هروف من كزروف يا بنتي أكسي جريم بينك بنتك بنتك كيف rémbi rek nga def de loolu laaj ci seetlu ok. macha allah hmm, jërëjëf euh, sëriñ Ousmane ak sëriñ Aliou kon sëriñ fàllu Guèye kon baax na kon dem toog déglu bi kanam tuuti. meneen sëriñ Fallou mooy ñëw kon muy sëriñ Fallou Mbaye sëriñ Fallou Mbaye kon mooy mooy war a ñëw. adan qadir li 왈가 على شاكور ظرف ثار من كسروف مع وروفي يذل هي لك أوروف من كسروف مع وروفي يذل هي نعم أمنا صلاة te ànd nag it ak akub yar ñu ngi dolli di siyaare mbokk taalibe yi xam naa di gën a bàyyilu xele ci kaw tribune bi waxtaan wi su ko defee bu xawee bari rek day perturbé comme bisimilah. waaw jërëjëf sëñ Fallou am na solo lool comme li ñu doon fàttali sànq rek daa mel ne gis nañ ko si comme jëm yi ma daal xabiroo ni ñu koy defee. online bi daa mel ni koy indee dafa dafa dafa ëpp lool madal xabe yow daa mel noonu nga ko defee waaw da nga koy da nga koy dolli way bu baax a baax te man na mën nay dikk rek yam madal xabeero daa mel ne tamit defaan nga ko si ilaa taxee ilaa taxee mën na mën na mën na yam rek mën na mën na bañ a gudd waaw am na solo lool jërëjëf loolu laa seetlu waaw jërëjëf sëriñ bi wax dëgg njàng mi am na solo daaj bi moom mel na ne jokk ngeen ko lool ngeen koy jàngee neex na lool macha allah comme ni ko sëñ a waxee rek léeg-léeg ondulation yi day rëcc wala dañ ci dolli moo feeñ ci ñetteelu xàbbu yi malaayee booru comme li ma la wax ki jug léegi xañ na yow wàccoo sax wala boog bokku leen nu ngeen di wàcce ndax yow boo tudduru rek day mel da ci suuf maa laa yaa boo bokkut ak ni ngay def nag yow leneen ngay def maa laa yaa boo day noonu nga xeet boobu nga koy defee loolu laa ci yëg rek jërëjëf euh, sëriñ Fallou kon moom it dina mën a dem toog ci biir jotaay bi ci kàndaay su ko defee ñu woo kàndaay bi ñu wax euh, sëriñ Cheikhouna Fall aja. su ko defee belum nañu déglu ko ci daaj moom it sëriñ Cheikhouna bisimilah madal xabiru lii wal kabiru ma la yaburu minaluhay madal xabiru lii wal kabiru ma la

مولانا ينصرني إلى شكوري على شكوري سلبي سناي إلى تقي ليس سقي بابي روقي ينوني لم ينمو قلبي داعي قلبي أو لا سلبي أو داعي الرسول يوما خاف يا زكاة لغير تائب لغير تائب من كسيفين لقد الطرف من سروف مع الغروب يزلها لك غروب من سروف مع الغروب يزلها أجا ci njàng mu neex mi kon ñu jox juge rek ko defé ñoom it ñu njëkkanteeg waxtu yi bismillah bisimilah jërëjëf sëñ Seexna ñu ngi lay ziaré bu baax di la ndokkeel ci prestation bi amna solo lo xamna lima li ma sa lu moy le sëñ Aliou doon wax ci gaay gi mo day melni ne tambalé ba légui ñi jang ñëpp duñu jëkëti loxo ta day melni da bok ci li taral ki jang ak li koy noppal waaw ah, nooy ak muy yëkëti loxo yi ok benen bi top mooy day melni laaj bi lépp da nga koy indit ak neexit yu daal waaye mujjantelu xab bi maanaam mujjantelu bayit bi foofu ngay sabo ngay sabotalu da ngay da nga koy gaaw a wàcc maanaam sabaat dafay jeex nga bàyyi ci xel dégg aw daaye wax da ngay gaaw wax daa rek tudd ko mu mu wàcc ci suuf dégg nga loolu laaj seetlu ci daaj bi waaw. waaw jërëjëf sëñ Cheikh ku la dégg nga jàng mu xam ne maîtriser nga daaj bi li nga koy jàngee am na solo lool waaye comme ni sëñ Ousmane wax rek nga bàyyi ko xel te di ko bàyyi la war xel ñëpp day mel ne liñ koy répété bari na waaye day mel ne du tee bu ngeen ngeen koy def rek am booy jàng booy boru de yëkkati sa loxo taf sa nopp booy samp tam noonu loolu mat naa bàyyi xel ndimbal la doon ci yow miy jàng bi ci des mooy war ngaa doole dal gi ci njàng mi day mel ne ni jëmm ji day jàng dangay topp jàng mi euh, baajeeg mel ni kuy tëbëk yooyu yëpp mën naa bàyyi man ngaa toog benn place rek def li nga bëgg a def bi ci li ma ci seetluwaat ci euh, njëlbeen gi rek xilli nga wax xilli la ñu bàyyi koo bàyyi xel bu baax laa ci seetlu waa jërëjëf sëriñ Seexuna euh, Faal Aja waaw maa ngi tuub bu baax daa am lu ma bëggoon wax sama xel génn ci bi ci des mooy ci gam bi nga teg bi nga teg daaj bi dafa mel ne dafa xaw a suufe loolu moo la xaw a sonal bu ñu jàngati ñu xool foo xam ne dinañ fa gam bi bu ñu ko tegee dinañ mën a bëru jot ko dinañ samp jot ko te rim bi du suufe ci ñun bi ci desaat tam bul topp comme ni ko axama leela rek nga xam ne fu mu nooyee nga bëgg faa nooyee déedéet léeg-léeg baat yi du bokk bu sa baat xawee néew doole mën ngay nooyi ci diggante xàbb yi loolu laa bëggoon wax rek. kon suñu seexu naa léegi nga nga dellu ci biir candidat yi incha allah ba ci kanam tuuti. kon sëriñ Abdou Lahad Kébé moom moom la ñu war a déglu Abdou Lahad Kébé. madal xabiir lii wal kabiir ala yabu أدى الخبير لي والكبير على يبور من اللهي حباه ربي خلي وحيبي مع النور حبي صفشتي محادي لالي محيد لالي بني حلالي بلا انتهاي مدح عمري سوف وقد سوف لبعدنا دمع طيرابي عند ترابي بلا غدير ولا يحوج جوري إلى الشجور على شكوري ذرفي ثناي إلى تقي ليش الشاخي ما الروح يحوج إليه لم ينحو قلبي داع لي قلبي أو داعي سلبي أو داعي داي خير العباد سلبي لقد من قلب لقد يوم الخفي يا ذا القذائب لغير تائب لخير تائب من كشفائي لك حروفي من كالغروفي مع يا يظلها لك حروفي من كذروبي مع الغروب يذلها لك الحروب منك الغروب مع الغروب يذلها njàng mi neex na lool xam naa dañuy déglu juge yi Euh, te bu fekkee benn candidat xaj na fi ñu jàll ko boo xam ñu julli ji ba ñëw bisimilah. ok jërëjëf sëñ Abdou Lahad ñu ngi lay ndokkeel bu baax ci prestation bi am na solo lool macha allah xam naa liñ ci gën a seetlu rek mooy rythme bi fi nga ko teg gàmm bi daaj bi moo waaw moo suufar loolu moo tax li ñu bëgg a dégg dañ koy for rek waaye duñ ko dégg bu baax waaye wax dëgg am na solo waaw. waaw jërëjëf sëñ Abdou Lahad jàng mi neex na ta tam weer na waaw li ko Ousmane waxee rek fi nga gàm bi xaw naa suufee xaw na laa sonal sax feeñ ci njàng mi ba lu ci bari lee léeg dañ doon am problème mu dégg ko dégg ko gën a yëkkati bu ci des mooy sa baat bi danga koo téye te loolu da lay sonal mën ngaa bàyyi rek jàng comme ni sa baat mel rek nga jàng noonu noonu moo lay gën a dimbali waaye. xañ na nii boo ko continuer di jàng nii boo demee ba sax baat xaw a màggatut dana la sonal loolu jërëjëf Abdoulahad Kebe kon Mouhamed Mbaw ñu ñu déglu ko rek te euh, waaj nit dem joxe ci waxtu su borom bi te ñëw yeggale dafa mel ne diggante nodd ak julli dana mat euh, fukki minute ñaar jëm ñett te euh, dafa mel na son bi de du wess ñet ñu yu teg tuti kon day melni ne bi kon ñaari kanda euh, mën na fee kon muhammad Mbow bismillah madal xabiru li wal xabiru mala yaburu minal lu madal xabiru لي والأمير ما لا يبور من اللؤي عبارة بالغيب ما هو بزبادي زربي إلى داقي ليس زاقي بابي روقي ينوني داي لم ينغ قلبي داي لقلبي أو داي Au بغير داء من كاشفين لك عروفي منك سروري معروفي يا ذا الوعيد لك عروفي منك سروفي معلوفي يا زلوي لك عروفي منك سروفي معلوفي يا زلوي lu lu ñu ko war a leeral ci daaj bi ñu déglu ko te yëkkati jotaay ginnaaw ba nu jullee ba noppi ku ne toogaat ndànk rek fa mu toogoon su ko defee léegi ñu fas yéene waylaat liggéey bi incha allah bala jant bee gën a guddi ñu mën a yeewee ko ndax dafay mel ne ginnaaw kàndaay yi ngi gën di wàññeeku comme bi coow la wàññeekoo rek kon waras naa mën a am temps ba lu bari li nga bëgg a la mën a jàll ko defee ñuy sàkku rek ñu dimbali ñu rek ñu wàññi coowal tuuti joxo benn fooy yes ma ko delloo naam dafa am benn jafe jëlal benn jafe Sëriñ Xaadim Njaay bisimilah Xaadim Njaay moo war a ñëw alxabiru lii wal kabiru mala first the في صنائي إلى تقي ليس ساقي بابي روخي ينهوني دائم لم يقل قلبي داهل لقلبي أو داهي صلبي أو داهي كروف من كسروف معروف يصلها لك روف من كسروف معروف يصلها ok jërëjëf suñu xaarif ñu ngi lay ndokkeel bu baax ci jàng bi am na solo lool macha allah xam naa bu njëkk yi liñ ci njëkk solo rek am na ret ci mujjante gi nag mooy lam yeen xal bi ak ila taq yi bi nga njëkkee def da nga koo wàcce comme bi ñëw ci tolluwaaye réem bi ko def bi nga ñëwaatee ba ci mujjante rek nga koy doogay nuwaat lakka toxoor ak yaasal ka waaw loolu moom lañ ci bàyyi xel ci daaj bi xanaa damay bàyyee gars yi ñu eggal waaw jërëjëf am na solo lool comme ni ko si Ousmane waxee rek am na solo lool day am ay tolluwaay yooyu def yoo xam ne day xaw a nuroog day xaw a dem waa kër Sëñ Masamba bu defee yooyu tamit danga koy bàyyi xel comme lu demee ko madal comme loolu loolu beneen façon jàng loolu da nga koy bàyyi xel da nga gën a bàyyi xel bu baax ak léewal kabiru comme sanri sànn yooyu yooyu dëkkut dëkkut si njàng bi dëkkut ci njàng bi danga koy danga koy bàyyi xel bu ak beneen bi tamit mala ya boro minal lu ay madal xabiru comme comme loolu man na mën na gàtt madal xabiru liwal kabiru mala ya boro minal lu ay waaw defe naa ne xam ne bu amee lu des kon gaa yi ngi waaye am na solo loolu daal ngay gën a bàyyi xel bu baax rek comme boo dee boo dee jàng nga xam ne daaju daaj bi moom nuróowut ak benn benn benn jàngin waaw nga gën koo fonk bu baax te tamit boo ko bàyyiwut xel pour nga yenn sànni yi ngay taw yi daaj yi day dalay yóbbu si si beneen beneen beneen rimbu am na solo loolu jërëjëf. la ليس الشيخ محى الورف يسلها لك عروف منك سروف محى الورف يسلها kon xam naa sëriñ Mor Sama bu dee sëriñ Aliou am na lu ngeen kii ci daaj bi waaw. ok jërëjëf sëñ Mor ñu ngi lay jaajëfal bu baax xanaa day mel ni moom liñ ñu soxla ci daaj bi wala ci ëpp liñ bëgg dëgg dégg dégg nañ ko ci daaj bi moom macha allah xanaa ñu ngi la ci ndokkeel bu baax li lay ñaanal suñu borom defal la ak kàttan ak. waaw bisimilah. Sall Couture. Darou Khoudoss Vaisselle. حاودو بولمبي ايكول بريفي محمد شيرين شيخ ايكول بريفي حاودو المورود شيخ جوب كونستريكسيون توبا تايف كارو توبا تايف كر خادم رسول دارو نهيم ملتي سيرفيس جولدن كافي كومباني نيامار بيزنس ساني باي جينار انتربريز محمد شيرين شيخ Huile Salihina Hawdu Couture 1 Dakar alimentation Xidmatul Xadim Xaadim boutique waa kër boroom Hawdu Taïf Déco ñoo leen di may seen jongante xasida daaray tànk yi